man maa koy léegi da ngeen di rëkkale. ay agresseurs dañuy ñëw pour filmer ah mais non waaye tamit ñu mën ñu filmer nii. sécurité ba sécurité boo xamante ne man la ñuy dóore. mais fi ma ko ma yore sax yaa ngi dugg sama sànq. waaw. s'il vous plaît. వారి వారి yàlla ñu si mën a jàllale ci yoon bi yéen ma ne seen nit la sinon voilà. Soxna Mbaye. est-ce que. 뭔 거예요? 뭔 거예요? 뭔 거예요? 다른 거. 뭔 거예요? 아, 아까 말고 léegi ñii ñii ñii di ñëw kii naka la ñu war a jaaree. waaye ñëw fële si li ñu war a jaaree. moom ñu am droit. jërëjëf ah est-ce que war ñu am droit est-ce que war ñu am droit.

Non, non, non. S'il te plaît, s'il vous plaît. bu su feet la quoi bu su feet la s'il vous plaît. dégg nga bu su teraanga feet la rek. waaw mais feet la. na moom na bàyyi yooyu muy def lu bari. léeg Lamine ne xulee naam Lamine yow da nga yegsi nag ma ne ko sa Lamine da nga yegsi gaa ñi yàlla lom na ñëw ma ne ko sa Lamine ay ñii suñu nuyoo def nii rek am yoon sécurité yaa leen ñu war a may yoon. papa ji ñëw na daa di inspiré daa di inspiré daa di inspiré ala fas ñëw nii ñëw dugg waaw c'est complet macha allah merci beaucoup la petite vraiment alhamdulilah yal na yàlla mutu lépp ñu ngi leen ko muurloo kon ñu ngi ci biir waaw bàyyi la yegg yegg ñu koy nangu si waaye lii moom siiw na yaa ngi ko di syndicat syndicat la ñu toj. jàmbaaro jàmbaaro. yow bu ñu ko woon ñu ko woon ñu ko woon syndicat ñu ko woon rek leen. ñëw leen ñëw leen bu ne. ñëw leen.

dañuy foto wu ñun dañu leen di ñëw pour sécurité dañu leen di foto ak suñu jabar. wuy ma wuy ma wuy ma wuy ma

du courage. sunu bay dey bay dey waaw bay dey waaw waaw bay dey bi Pikine la jëm jaaree sa ligne dama bëgg ñëw taxaw

Pidaat a ngi noonu di wax comme day baax di Cissé waaye Pidaat yow li ngay wax nii yaa ko moom ndax nag tey juma tey yéen a doole xam nga yaa ngi noonu ci ginnaaw. yërmande la yàlla yàlla yërëm yërëm fa la boo sa doxu baax fii la. toll wante njëggal lépp am na si biir kon yàlla yàlla antul say bii ci zahir ak ci baat nee na nun famille bi ñu ngi ñaanal yàlla sunu jarbaat topp ak bu sisi bare na xale boo xam ne am nga noo meloon. am nga noo meloon. wala situation dabe. wala kii moom la woon. loolu da dalu ba la juddoo. suñu kanam la juddoo. suñu kanam la yaroo. suñu la mag. ba ko mu meloon dem. dara soppeekoo ay nijaayam. kon fi gis jox ay baayam jox leen sel ay tantam ay bàjjan waa Pikine fi teew pour ne mën na seede lool kon ñu ko ñaanal. ak Medoune Diouf soxna Jabi Diouf seen. mais témoin laa gis nii de. waaw waaw yàlla na nag. waaw. ndax euh, Diaw Fara ma Diaw Fara dogal na maag moom ñu yàgg lool. Euh, mu dégg lu nekk tamit nag ci sama jëmm waaye man ma dégg lu ne it jëmmam. waaye Serigne bay Jaxate dafa am wax jum wax mu ne asal lu mën a xew awal ndigal te yaru yow di nga làkk bépp ak yow tey ak ëllëg maa la ko wax am lu olof Njaay wax sànq waxoon naa la ko mu ne buñ la tooñee nga muñ yàlla dalay defal ñaar mu yàlla dalay fayu ba pare fay la dalay fayul ci tooñ giñ la tooñ ba pare fay la ci muñ gi nga muñ te Marie Louise Diaw loolu la def wax dëgg fa yàlla ñun wax ci moom dañuy tiis gis nga ni maanaam famille lu mu rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy Ousmane Seck da cee mën daal loolu dogal na gis nga nii baa ngi nii ma ne ma ne ma demal coaché léppam rek ma am ci cër nag mari day jàpp kenn ne ko kenn kenn kenn ñëpp wax mari du ba waaye yaayam bu sonn naa woo leen ma Ousmane Seck woo leen ko bu ma ñëwee ñu tëju ma moom waxtaan en tout cas daal yàlla na ko yàlla lafal cat yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla aar jubóole ko ki nga xamante ne nag mooy baabu siise ngaar yi njar meew tëmbal galaas def ci ndox mu sedd naan sa pour tooy ambiance amul mer mer ñu ñu ñuy bëgge daal yàlla yàgg tonton Mbène bëggeel ma jàmm Malick tu es à moi univers et faux galop je